juma jamalul boppam soxna jaara moo jaara soxna jaara sa jéggi àdduna manu saaxal fil si war jënd aw bin maale gën manu saaxal wax na si ministre nee na mi ngi lay nuyu nuyu boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñu ngi lay euh, ziar bu baax a baax Mbacke ne ñu ngi lay ziar bu baax Mbacke Balaye Soubri di sawar lool di ñëw fii poroxaan. nee di sawar lool di ñëw poroxaan. ndaxte lépp lu ñu liggéey. nee lépp lu ñu liggéey. ci wàllu santé action sociale. nee ci wàllu wér-gu-yaram ak action sociale. suñu ñëwee fii xam ne ñoom lu ñu bëgg la. nee bu ñu ñëwee fii rek xam ne lu ngeen bëgg la yéen. moo tax bu ñuy ñëw. nee moo tax bu ñuy ñëw. bu ñu duggee ci région bi. bu ñu duggee ci région bi. ànd ak monsieur le gouverneur ak ay préfet. nee ànd ak monsieur le gouverneur ni nga ko wax rek ñu ànd ak département bi yëpp. nee ànd ak département bi yëpp nag. directeur de cabinet coordonné ko. nee directeur lépp. mooy li nga wax rek. mooy kàddu yi ñu fi yëkkati léegi. ku ci nekk ci fa nga toog. ku ci nekk ne ca fa nga ne. mën naa la biral ne mu ngi liggéey. ne mën na la biral ne ma ngay liggéey. di liggéey liggéey bu am solo. ne ma ngay liggéey liggéey bu am solo. ni ko son excellence de président Macky Sall. ne ni ko président de la république bëggee. Euh, bëggee. ni mu ko bëggee. ni ko premier ministre Amadou Ba bëggee. nee ni ko Amadou Ba premier ministre bëggee. santé nag dafa transversal. ne santé dafa nekk loo xam ne dafa bari càlla la. moo tax ma ne ni ko gouvernement bi yëpp bëggee. moo tax mu ne la ni ko gouvernement bi yëpp bëggee. ñu sawar lool di fi ñëw. nee ñu sawar lool di fi ñëw. di la fi fekk si. di la fi fekk. di xam ne di xam ni même bu ñu ñëwul itam même bu ñu ñëwul mun naa laa biral fii ne teraangaam ne say teraanga mi ngi egsi ba si ne mi ngi yegg si ba ci moom jàppaleem ne jàppaleem mi ngi egsi ba si ñun ne sa jàppale ngi yegg si ba ci moom ko waxee rek ne comme ni ñu ko waxee rek dëkk bi dëkk bi ku ci nekk yaa ngi ci li ngay jàpp ku ci ne yaa ngi ci li ngay jàpp di ñaan yàlla di ñaan yàlla di roy ci ñoom di roy ci yéen jàppale bu baax bi nga xam ne jàppale bu baax bi nga xam ni ñu ngi ñu koy jàppale yéen a ngi ko koy jàppale li ñu wax fii yëpp nag ne li ñu fi wax lépp ne indi nañ ko. ne indi nañ ko. xeeb nañ ko ne xeeb nañ ko de. ndax xam nañ ne. ne xam nañ ne. fekk nañ fi sax. fekk nañ fi sax. amaana lu ko ëpp. amaana lu ko ëpp. mais lu ñu war a indi la. waaye nag lu ñu war a indi la de. daara ji. ne daara ji. nga xam ne day formé. nga xam ne day formé. ay xale yu jigéen kese ay xale yu jigéen rek. daa ci dellusiwaat. ne dina ci ñëwaat. am na fu ñu toll. am na fu ñu toll. ndaxte jàpp nañ ne. ne jàpp nañ ni. jigéen ñi bu ñu fi génnee. jigéen ñi bu ñu génnee fii. ku roy ci ñoom. ku ci ñoom. dëkk bi dina am développement ne dëkk bi dina am développement ci li nga xamante ne. ne ci li nga xam ni. borom réew mi borom réew mi moom rek la bëgg moom rek la bëgg. moom rek la bëgg. wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm moom. ne ñu ngi lay gërëm bu baax. di ko sant di ko sant. di wax ne. ne di wax ni. ñu ngi tàllal rek suñu loxo. ne dañuy rek tàllal suñu loxo. di ñu ñaanal. nga duñu nga duñu ñaanal. ba lépp lu ñu sumb. ba lépp lu ñu sumb. ñu mën cee am résultat yu baax ne ñu mën cee am nag résultat yu am solo. te mu neex population te neex nag population yi. loolu rek moo ñu tax a jóg. ne loolu leen tax a jóg de. te xam nañ ne ñoom ñu ngi si. non xam na ne yéen yéen ngi ci. di ñu jàppale di leen jàppale. soxna si daal soxna si. jàppal ne li fi wut si. jàppal fi wut si. indi nañu. ne indi nañ de waaye daal ñaan gi daal la ñu wut xam ne nag mi ngi fii te yéen a ngi ci. te xam ne boo ma ñaanalee. ne boo ko ñaanalee. ñi ñëpp ñi ma àndal nga ñaanal. ne ñëpp ñi mu àndal nga ñaanal. ne da ñëpp a ngi jàpp. ne ñëpp ne. moom jàpp na ni. ñi sori. ñi sori. ñoo jàpp ne yéen bi diis na. ñoo jàpp ne yéen bi diis na. mais yéen bi diisul. ne yéen bi diisul de. ndax ñëpp dañ ci jàpp. dëgg yàlla ne bëggoon na la ko seereel fii. ni ma ko waxee ci kanamu xalif ni mu ko waxee léegi ci kanamu suñu baay bu tedd bi. vraiment ñaan rek. ne ñaan rek. la ñu soxla la ñu soxla. ndax jàmm gëri. ndax jàmm. ak salaam ak salaam. ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm. di la sant di la sant bu baax jërëjëf. xablil safinatan li kulli janna. min daaratil minna ni yaasal minna. ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom. noo ngi julli ci sangi sangi Seyduna Muhammad di sant Serigne Touba Khadim Rasoul tey ñaanal Cheikh mun Mountakha yàlla na fi yàgg te wér naal yi mu naalal lislaam naalal ko diine ji mu àggale ko sagom te nu ànd koog moom. di siyaare bu baax soxna Bali Mountakha bintu Serigne Souhaïbou Khadim Rassoul ñu yëkkati kàddu yu sell tedd yu bàyyi koo ci soxna baal Bali Mountakha jëm ci ganam yi tedd yii mu am muy madame la ministre Marie Khemesse waaye nag nuyoo bi da ciy jiital doom joo xam ni nee na day doom ju ñu gërëm. di jàmbaar joo xam ni ay bàyyi ma ko tànnoon jiital ko ci dëkk bii te biñ ko fi jiitaleeg léegi la taxoon ñu jiital ko fi ak lañ ca bëggoon yàlla defal na leen ci lu kawe njort koo xam ni ak dalam dara génn ci Serigne Touba yitteem yëpp mooy Porokhane ak lu jëmee Porokhane kanam loolu wala na nag Basiiru ci Daaru Minam ëpp na 3000 Basiiru waaye bu ne nee Basiiru Porokhane adresse bi benn rek la muy Cheikh di Basiir mii soxna si ne loolu nag ab cër la ab garaat la waaye jëfe nag. ak dénkal ay waajuram moo ko may boobu cër nee na bala moo wax benn kàddu day seereel ñi fi ne ñëpp sant koo xam ni sëñ Muntaxa sant na ko sëriñ Basiru mii waaye moom mii nag di bàjjanam di xaritam di léppam ameel geneen cantuk boppam goo xamit dugal na ko ci biir cantu sëriñ bi ñu xam ni moom soxna Baali sant na sëriñ Basiru Mbàkke mii gërëm na ko ñu xam ne bi mu doomee doonam ba noppi day xaritam di léppam nee day koo xam ni xëcciwul dara bëggul lu dul ak taalibe ak sëriñ bi ñoru ko safu ko nee na kon sant na ko gërëm na ko di ko seereel madame la ministre ndax nag at bu jot buu saabu bu fi madame la ministre ñëwee ci ay loxoom la ko sëriñ bi teg mu ànd ak moom li ñu war a def lépp mu def ko te nag ku ne xam na ni dëkk bii di Poroxaan moom lañ fi jiital muy jëwriñ ji li màggal gi xat-xat day ñëw taxaw ne ko bàjjan noo ko bëggee rek noonu lañ koy defee kon nag nee sant na la bu baax Mbàkke gërëm na la madame la ministre soxna saa ngi day nuyu nuyu ak sous-préfet ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ngeen àndal ak mboolem waa ministère ba yëpp bu jëlee nuyoo bi teg ko ci daaf mi nga xam ni day taalibeem ca démb tey door a ñëw bokk kër sëñ Soyibu kon moom da koy ñël ci lépp jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu teg ko ci mbooleem ñi nga àndal nuyu bu baax soxna Njaay mi toog ni ko daaf waxee léegi rek moom fii la dëkk ci kër gi am fi ay cëri cëri cër ndax cëri cër yooyu mu fi am sax muy cërug mbokk doomam loola dëgg la waaye cërub démb ba daa ëpp doole muy maamam daa jaayante woon ak Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall jaayante ak Serigne Touba bi Serigne Touba gërëmee Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall maamam boo demee Thiès ca carrière moom boo ñëwee seen buntu kër Touba carrière lañ fa bind. te booba à l'époque du koñ booba ay ay tubaab ba fa daan dëkk ak ay ñun ñoo xam ni ay fonctionnaire d'État la ñuy doon ne ca ca démb ndax boo demee ay euh, onkat ba fa la ne fa la gouvernance ba ne. cadastre fa la ne préfecture lépp fa la ne baayam nangu woon a fësal Touba googa bindoo ko ba ca démb nga xam ne ñun ñi juddu danoo juddu rek yeewu di gis ñu bind Touba carrière kon nag moom cër yi ay cëri cër la kon soxna saañ koy san mi ngi koy gërëm ñëw na fi tey nii ñëw administration teewul dimanche it dana fi ñëwaat ñëw ko Baye Baye Fall kon nag moom fii la dëkk ci kër gi kon ñu ngi koy siyaare bu baax nuyu Serigne Ndiaye mi nga xam ni tamit li féete ci wàllu Touba mu nekkal leen fa yor liggéey bu rafet moom ñu ngi koy nuyu di yëkkati nuyu bi teg ko ci loxoom muy Serigne Ndiaye Dorab mu soxna Marie Xemes Ngom waaye nag ma madame la ministre soxna saa ngi sant di la gërëm di jël cant ak ngërëm goo xam ni am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem jëmee ko ci yow ci sunu jëwriñ ji toog di alaaji Cheikh Diop kokki mii nga xam ni fondation soxna Baali taxaa bi nga xam ni social rek ko tax jóg moom moo yor liggéey bi yoral ko soxna si di ci taxatawaay yu am solo kon cant gi day jóge soxna si jaar ci mu wàcc ci ñun ngir ñu jëmale ko fii nga toog foo xam la saal bi foo miin la kon loolu day wane ni cërub ministre bi dëgg la waaye nag xarit nga mbokk nga doomu ndey nga wëllëre nga te loolu lenn lu ci ne jëfe nga ko doxe nga ko tubaab nag dani na considérez pas une personne à ce qu'il a dit mais regardez ce qu'il a nit melu ni mu wax ni mu def la mel boo nee bu ñu nee nañ dem Porokhane damay sawar bu ñu nee nañ damay sawar loolu ñun ñi ngay fekk si ak njaboot soxna Bali gi gëm nañ loolu ci say acte ak ci say defin ba noppi say wax nag door a ñëw mooy kàddu yi nga wax sa jëf da da koo jiitu moo da bu kàddu gi ñëwee dañ koy gëm Touba nag dem fa yomb na ndax léegi autoroute bi une a trente nga àgg jóge fii dem Louga yomb na dem feneen yomb na waaye Porokhane nag moom daan na ci digg àllu Saalum bi te làmmiñ mën naa wax lu mu gëmul xol mën naa fa dul dëgg ci moom bët xool lu ko neex loo xam ne neexu ko te du ci man dara waaye tànk fu mu dem nag borom a ko fa yóbbu rawatina at bu jot booy ñëw teraanga yi ngay jël ak bagage yi médicaux yi nga xam ni di ko indi fii ci dëkk bi tamit doon li nu yittoo loolu moom cantu Serigne Bass leen ciy jiital ba noppi door cee indi cantu ñi nga xam ni ñuy ay kilifaam di ko liggéeyloo mooy at bu jot lépp lu nu soxla ci santé ak na mu waree da nga ko def ba def ci lu kawe njortu Serigne Serigne Abdou Lahad nag nee na sanc bi koo xam ni fekkee nga bi nga koy sanc lu ci yokk lu ne da koy xam li nga xam ni yow yokk nga ko ci santé bii sëñ Bass mii xam na ko bu baax a baax ndax liggéey bi yàgg na ci képp ku fi mas a jaar ci santé ci loxoom lañ lay teg mun la ci kilifaam yi kon nag li ci yokk ñoom gis nañ ko te xam nañ ko kon ñu la ciy sant ñu ngi la ciy gërëm di ñaan daal ci barkeb Serigne Touba ak barke Soxna Jaara mii borom dëkk bii li li nga xam ne président de la république yëkkati na ko jox la ko yàlla na nga ci am lu kawe njort am ci ndam loo xam ni kenn mësu ko cee am te loolu dëkk bi attan na ko borom bis bii di Soxna Jaara it attan na ko ëpp Serigne Touba nag. santé da koo ñor ndax bu sañoon ndax dane dafa bëgg ñëpp jaamu yàlla waaye nit ñi balaa ñoo mën a jaamu yàlla danoo wér moo tax mu ne anzil sifa ak maakaana daa i wala tuxaamil na bilib ci laay wan si naf xa maakaana durri wan si li xayra maakaana sarri wan si xilma maakaana jëxli wan si juddu maakaana buxi àgg ci bindi xasida goo xam ni mat la ba si fay la ko la ko tuddee ngir ku tawat rek xasida googu boo ko dee jàng loolu mën naa sa mën naa saafara kon santé day lu am solo ci réew bala ñoo lijjanti dara santé lañ war njëkk a lijjanti ba pare moo tax moom mii di soxna Baali fondation soxna Baali bi bu ngeen seetee lépp lu muy yëngu bari na fànn yi bari na waaye li ci ëpp nag santé da ci ëpp doole ndax malade mentaux yi sax soxna Baali da leen di bàyyi xel di bàyyi xel handicapé yi di bàyyi xel sa sa centre centre de dialyse yi nga xam ne day yëkkati ay appareil dialyse di ko jël di ko jox ci hôpital yi yenn saa yi mu xëy dem ca hôpital dem ca pédiatrie xool lan nga xam ne moom lañ aajowoo fondation bi leen ko defal te loolu donte fondation la tàllalu ci loxo kenn xaaru ci benn bailleur elle le fait avec ses propres moyens moo tax bi ko waajuri way dane euh, orphelin et pauvre trouve en un refuge xénophobie bannie de son dictionnaire noblesse innée dans l'acte et le langage la grande dame généreuse comme la mère Baali Muntaxa la pièce loolu li ko sabab mooy to mooy mooy loxoom ni mu xatee ak yi liggéey bi mu yoral sëriñ bi ak ni mu nekkee ci waañ wi waaye di cibb di séddal ba ci yàgg sa xel dem ca ña tëdd hôpital loolu ndimbalu yàlla la moom nag loolu la ko yàlla defal Serigne Cheikh Diop mii xam na li may wax yenn saa yi mu toog di séddale añ ba ci yàgg daan ne ko Cheikh mu ne ko waaw mu ne ko ah Cheikh ceeb bi des na tey xool waa waa hôpital Ndaamaatu teenu ko faa yóbbu teen koo yóbbu hôpital Matlaboul ni na ko man daal la xale xale xale yu ndaw yooyu ñu def ci veer yi daal ni nga xam ne matagunu fan yii yëpp ñoo am ñoo ne sama xel nga xam ne am na journée spéciale boo xam ni ay millions yu bari la jël defoon ko ci kerees bi nekk hôpital Matlaboul Fawzeyni kon yow li nga yor soxna baal moom jàpp na ni moom ngay liggéeyal kon boo fi tegul woon sa tànk sekkoo ak moom dara tey jëf-jëf jure yi ci sant ba Sénégal di la gërëm soxna si nee moom sant na bu wér leneen li ci des nag moom sa relation particulière bi nga xam ne am nga koog moom muy say engagement singulier yoo xam ni da koo jël ci sa diggante moom ba mu xamal ko boppam ndax nee na nag ku yàgg ci loxo ku ne ñun la koy xam xam na ni yow jàpp nga ko xam na ni bëgg nga ko xam na ni def nga ko ci sa xol ndax nag délégation yi fii ñëw bari na waaye delegation boo xam bu ñëwee chef delegation bi dañ koy génnee salle bi yëkkati caabi rek jox ko mu dem tëdd fa ba mel ni ku ne këram du ma ne yow rek yaa koy def waaye nag dan dan dañ koy wàññi loolu la koy sabab mooy xam ni yow def nga ko ni sa bopp xam nga ni kër gi sa kër la nga xam ni yow saa boo accès danga naan nii laa ko bëggee nii laa koy defee nañ def nii nañ def nii nee na loolu lépp nag ci sa yittey bopp la ak ci sa baax kon daal ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm di santaat Cheikh Mamadou Bassir bu baax te koy ñaanal yàlla moom it fanam wéeral ko liggéey bii ko bàyyi mi dénk yàlla defal ko ci lu koy njot soxna Baali daal nee na seere na ni Serigne Bassirou Porokhane mi ku ñu sant la ku nu gërëm la ci ay taxawaay ci biir ak ci biti Serigne Moussa Lakaram moomu nga tudd léegi noonu nga ko seere rek moom digganteem ak Cheikh Mamadou Mountakha benn diggante rek la te mos sa soppiku ci dara benn pas-pas rek la ma sa am benn jublaay la ma sa am muy sa Mamadou Muntaxa ba noppi nag di xaritu soxna si di kenn ci moom ñoom ñaar ñu bokk bàyyi bokk lépp kon daal ñu ngi leen di sant ñu leen di gërëm lu ci dëng wala lu ci manqué ñu xam ne ci ki ko doon wax la waaye fa mu bàyyi ko ma mate na fa sëkk wa rahmatullah ma jëmalul boppam soxna jaara أو بالنادي كن ما نطاق